Sœur maa ngi tudd alburu lañ seet si ñu naan alburu bi na jéeme defe naa ne tey li mu fi def musul am ci làmb defe naa ne nga dajale lu mat plus de sept organes wala huit

xam nga jàmm gën ñëpp di nuyu Sénégal yëpp waa West Foire ku lim da ngay juum voilà di nuyu yéen journalistes yi bu baax a baax a baax gis nañu seen taxawaay ci tàngoon bi wax dëgg yàlla lu ngeen bokkul baaxul wax dëgg yàlla. ayca Alboury balaa comme ni laay demee ñu ngi yu bari mu nekk nii ñu ngi toog Alboury waaye Sénégal jaay ñëpp toog lan la Alboury affaire bi ci Lac Rose bi nga ko sotti wala. damaa mën a reer rek fii laay reeree fii ngay gis nii. fii ci fii ci Yaya Magic Foot. waaw xam nga reeree ko suur Eh, dara du la të voilà ñu ngi sant Yaya borom Magic Foot borom hamburger yu baax yi. waaw di di wax ne affaire yi moom eh, noonu la mun a demee nee naa fii moom lu am rek yàlla la. nit sàkkul boppam man su su ma doon sàkk sama bopp wala may may sama bopp fi mu ne nii siège bu Macky bee laa yóotu jéem ci toog xool mais lu waaye am rek na ko sante la quoi voilà. balaa ñëw sa combat rek nit ñi bëgg biñ la bëgg Sénégal foo foo toog ñu naan Alboury Alboury say supporter supporter ñëpp lan la lay def émotionnellement. yàlla xam ne ne aw ma ci émission ndax yëguma lool yëguma ne sax nit ñaa ngi may seetaan billaahi moo tax émission boobu nga wax xaw ma émission boobu yëguma ko. Alboury émotion la émotion maanaam bëgg ba nit ñi bëgg. Ah. émission bi laa lay wax ko émission boobu nga wax. yëgu ko. yëgoo ko damaa ñu la bëgg yow xamoon nañ ñi dañ laa bëgg. ah waaw mais tamit dama ne la yëgu ma ne instant bi nii coow la coolaan ci man ko yëgu ma loolu. coolaan ci yow nag. Ah, loolu laa yëgul nag mais xam naa ne fii moom nit ñu dañ ma bëgg man xam naa loolu. Hmm, léegi lan la lay def yow. ah kontaan rek ndax affaire yi moom sëñ bi tey jii nii bu ma ñëpp bañoon tamit day métti ci man. Hmm, day métti trop voilà. mais bu la ñëpp bëggee nag loolu euh, mbégte la mbégte la te tam ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. dëgg yàlla su ma damay reetaan ba jaaxaan noonu nag may déglu rek mel ni kuñ coqataan ci foqataan a jaara bu sa borom paraxaan <laughs> léegi bu ñu jógee ci loolu albu ñu ci bari nee ci poqataan <laughs> ñu jógee ci loolu ñu ci bari dañ la bëgg def comédien mm-hmm. ñu ci bari dañ la bëgg def comédien te Alboury nag bu ñu waxtaanee rek Alboury mbër nga lu tax nga bëgg a nangoo nekk comédien non pourtant man euh, loolu ñu ñëw koy gis man taxuma fenn ne comédien laa de man fu ma mën di taxaw ah loolu nag yëgu ma man nag wax dëgg bi nu ma sama bopp te nag wax dëgg yàlla nag bu lang daaree ba daar daar du ma fi nekk di mer wala may kii damay wax de man bëy laa même boo may ray si ron laal sax damay wax waaw damay wax de. mbaa sa làmmiñ damay wax de damay wax de damay wax ba xottiku waaw damay wax de. man inspiration tamit. inspiration maanaam xel mag bi nga yow def. lan moo la dikkee ba ngay wax lan dikkee olof. waaw mais ñi yaa nii di wax yow lu la dikkee ngay wax ni yow. kon wax sama liggéey la. wax sama liggéey wax fii kenn du ree mais hmm. kenn du ñett. ah loolu lu ma ci xam <laughs> damay wax de li war a wax rek laay wax de li nga ci man rek laay wax. xam nga nit moom da ngay xalaat rek di wax. yow da ngay xalaat di wax kii day xalaat di wax man damay xalaat rek di wax léegi nag bu ko nit ñi di consommer moom ba ciy dee man man loolu sama néew si <laughs> du dëgg ah mais li ma xalaat rek laay wax de. Euh, ñu ñëw ci làmb ji ñu gis combat bi nga jël ko coow li bàyyi woon njambaan am fu mu yóbbu woon làmb ji bëgg a dellu siwaat ci làmb mais euh, dafa benn wax boo xam dama ko cay dégg muy kaani kaani salaat nga rëy nga waaye safuloo fan nga tegoon wax jooju waaw en général moom kaani salaat noonu lay yooyu lay def kaani salaat day dijj torop waaye du saf dara waaw li taxoon moo xon du question xeeb ko ndax champion la ndax moom moo ëppoon ay combat moom moo ëppoon ay victoire lu tax ma wax loolu xeebu ma ko quoi xeebu ma ko. mais nga ñëw ci làmb ji làmb ji dafa yomb man dama ne lii moom xanaa ñi est-ce que combine ñu sax. combine lan ah man day wax dëgg yàlla moom ba làmb ji xasee taxaw te man dama jógee trois mois dama ci bëree trois combats man chaque jour amul amul amul jour bu ma noppalu dimanche rek laa am pour noppalu ko di entraîner chaque jour bokkul ak koo xam ne dafa gëj a bëre voilà. bokkul la koo xam ne toog na ay longtemps bëriwul bokkuñu compétition bi bokkul juste loolu la rek ma ñëw ñu bëre ànd ak samay mbokk waa écrit sa ñambur waa grand bi di ñëpp topp sama ginnaaw ci biir géew bi mhm. parce que dañoo gis euh, arbitre bi mu sifflé ngeen jàppante yéen ñaar amul lu njambaan def gisuñu lu njambaan def yaa dóor yaa dóor yaa ko wañaa xaw ma danga xaw ma kenn xamul daal kenn njambaan moom xam naa ne bu ñibbee am dina am lu ko metti te def na lépp moo ko def moo bëri moo xeex moo daan te njambaan jaay na ay biiram def ci làmb ji ah, bi moom sëñ bi moom ndam lañ ndam lañ bëgg lañ doon wut quoi yàlla may nañu moom nag bu ñëwee ba foofu nag bañ na du bëri nag moom loolu man daf may neex man xam nga daa bañ na du bëri a ah, xaw ma de man daal en tout cas def naa li ma liggéey moom nag bu deful li mu liggéey li li ko war loolu moom moom la concerné ak ay mbokkam mais man moom l'essentiel ndam moom indi woon ah, ndax combat pare parewu moon sax pour juum si ndax ba may génn li ma topp man man man daf maa jaaxal ma voilà kon làmbu amatuma droit di si juum wala may def loo xam ne waruma ko ci def eh, noonu la demee nag yàlla may ma ndam ci kawam pourtant pourtant am na doole de mënoon na sax gën a yomb ak ah, waa mais tamit euh, mbër la moom mbër la mais mbër laa man plus. plus la waaw. plus man mbër plus laa waaw. xam naa yëgoo ko. mbër plus lan ah, plus lan xam ngeen. plus plus lépp. mais ñu gis bi nga daanee neex su ma feetee neex su ma kiyee day neex loolooy plus bi. dañu dem jëli ñëpp mën lañ faral. dama dem jëli buuse mu ne daanoo daanoo njambaan néew nga daan. parce que jàpp yow ba mu ne war du nga daan. war fii la jàpp aaju mbay liggéey ko ba tànk bi damm xaw ma mu daan <laughs> ah ma ko deful daf ma koy def. te man sax gisuma liggéey nga man wax dëgg yàlla. mais nag attention njambaan bi doon seetaan ci ay combat ci ay taabu saanam da daa xeex bëre mais combat bi réagirul dara. te bi mu doon préparé combat bi bi mu doon préparé ni mu tolloon ak si biir bi ni mu tolloon mm-hmm. dafa mel ni bokkul. daa mel ni péeral e bi la. Eh, maa bëgg a dugal. man liggéeyu ma ko de. yow moom léegi ma ko de man defuma dara. moom moo ma liggéey ba ma ma daanee ba pare mënutuma wax. foofu laa bëgg a ñëw bi nga daanee dañ doon gis fi nga daanee ci saa si nga réagir. ne tëggkat ma mais dañ la gis nga daan comprendre. mais dama pare man xool moon làmb jooju maa ngi ci beneen bu ma doon préparé. ci digg géew bi. ma daane sama xaaju bi tey lépp foofu laa ko sangu pour beneen combat bi. beneen combat moo tax non combat bi may am ci combat boobu laa nekkoon. nga daan di di waat beneen combat waaw ci saat bi waaw. xam naa mosoo ko gis. non dama doon préparé sama bopp rek. léegi damay damay de. waaw. léegi nga daan booy booy taxaw nañ pour jëflante ak yow ku ci mel ni ñaabu ndaw su ma juumu xaw ma dégg nga comme déggoo ko nee na pare na pour ngeen jëflante te paasal ak géej waaye. kuy ñaabu ndaw. moo ñaabu ndaw booy ñaabu ndaw mu dëkk géej waaye kii la dëgg. daan booy ñaabu mag. rëm la mujjee daan ak R5 ak boulon. di ko di laa xaw ma rek. kii man nag problème bi du ma seetaan làmb xam naa. boo ñaabu mag sax laa foogoon ngeen di wax. ko la joxoon boo waaw maa moom combat boo ñaaw mag combat kay. waaw doo ma bàyyi boo ñaaw lan la ma lan la ma. ah man grand man ma bëgg ci grand yi man grand yi laa bëgg de. la ko fan yow du question de coow lan mooy coow ñun yàkkamtiwuñu yàkkamtiwuñu li ñu def. sa diggante ak Ndiaye Tine. Ndiaye waaw kooku tamit làmb boole nañu. neex na de lamb bo lamb bëgg nga xam ne man du ma bëree suqu gànga ndax géew bi daa yaa. champion laa ci dunia duma ma joo ndax damay jàgg di xeex di bëre di daan tey dóor di jàgg di joggi ba mel na kuy buur di ngay wax ni dawul sama yaram fi ma teg sama bët du sax foofu. kuy sump bi amel leen revanche man Bawol dugg naa fa ñaari yoon xaw ñetti yoon. ak jamaa. waaw. jamaa waaw waaw la man euh, du ma du ma ne benn mbër jox leen moom mais ku ma làmb booleel te jii nii bu ma buñ ma joxoon Ndiaye Tine nii nii nii nii nii ah. ma waxtaan ak samay mbokk man nee naa du ma delloo avance ma waxtaan ak samay mbokk ñu ne ma jëlal. ma jël ndax instant bu njëkk man maa daan jëlal combat sama bopp. Mhm. mais léegi affaire dafa yaatu je professionnel. voilà staff bi ñëw staff bi ñëw taxaw voilà. Ah, non du ma professionnel mais dama ànd ak ay professionnel ku Thiaw Mbaye moom cité la nekk di jàng eh, droit <laughs> voilà ay Cheikh Cheikh xam nga kon ñooñu buñ la ay ay Ahmed Seri Salima xam nga ñooñu buñ la ngembee donc nag. di wan naa la jaaral nii kon léegi man lépp lu may dugg dama leen di laaj. Thierno bu Malick ak Ñagas. mbër bu may bu xel laa la wax mais dama ne la fi ne nii man maa ngi ci kaw ay ñoom boo ñaa tafa waaw Baara Ndiaye. waaw Baara Baara Ndiaye combat la. rek. Euh, combat bi normalement maa ngi moom ko waroon a bëri. Hmm. waaw. ok combat bi maa ngi moom ko waroon a bëri mais moom juste na xaw ma moo tax bëggul bëri ak man quoi. ok voilà. Mhm. du ragal moom. ah wax dëgg yàlla woo nañ ko fi avant may bari kii na ko pour yook ak Alboury mais jëlul quoi mais xaw ma nag. peut-être xeeb. balaa xamal laa ragal moo ci jàpp. waaw ah, man góor mbër képp kuy dugg ragaloo képp kuy dugg ci làmb ragaloo daf maa ah, xeeb. waaw moom du daf maa xeeb. daf maa xeeb mais tamit euh, xam naa ne dinaa gën a góorgóorlu gën a gën a entraîné euh, ba mën a tolloog moom quoi. dama ñëw ci nga dama dama am staff su may jël combat damay wax ak sama mbokk ba pare est que ñoom lu ñu xam-xam làmb. yow hmm. yow doo gën a bëgg sa bopp. waa yow mi dàq ngeem dañuy naan bopp yenuwul waaye xam nga bët yenuwul waaye na ne bopp attan. dama naan fii lépp lu fi amul staff bu dem bu ñu waxantee dëgg rek ndax mbir day toll foo xam ne ñun bu njëkk dañ daan dañu daan woo rek nee na dem jël avance ñu ñëw bëre duñ ci waxtaan kenn kenn daawuñu sax topp mais instant bi booy bëre ji Sénégal ñoo lay topp xam nga lépp lépp looy jël nag ah, dañ koy waxtaane ba déggoo ci man awma problème boobu musuma ragal. amul mbër bu may sax di bàyyi xel voilà mais fekk lépp loo gis rek comme que affaire de staff la ah man xaw moon sax luy staff ñoom ñoo ne ma lii staff la léegi nangam sangam. lan mooy staff ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo ne ma léegi staff la ma ne ah ñu ne ma waaw ñu ne ma lépp looy duggati da ñuy laaj ba pare buñ nangoo nga jël buñ nangul nga bàyyi man leen loolu xel nangu na ko. léegi man maa ngi seen ginnaaw buñ nangoo ma dem buñ nangul ma xaar mais loo ci mënti dégg daal aw ma mbër bu may ragal. waaw ok ci ci ci côté Grand Médine bi nga dëkkee aussi tamit dañu seetlu ne am na espoir yu fi nekk ñu mel ni Pape Mor Lo Ndiaye Angé Yékini Junior ndaanaan yu bëri nekkoon fi caatu piyool bi tamit ñoo ñoo mujj ba si ndongoloo ñu xool ne macha allah seen début Grand bi yëpp da leen di topp ba rax parcelle ak fépp dafa leen di topp ñuy génn mais dañu dem ba ci biir neexlewu ñu xaw ma succès moo leen ndax xam lan la est mi ngi bàyyi lool ak buy jóg bokkul biy topp si ginnaaw man de euh, ba tey nii nii nii nii nii làmb yi may bëre yi taxumaa jóg xam nga ñoom peut euh, ñoom ay champion la te def nañ ci làmb lu nekk mais ku ci nekk ak fi yàlla ne fii ngay commencé ak fii ngay yem munoo ko passé boo ko bëggee passé yàlla da lay da lay rey ñu jël la denc la nga gaañu après mu jeex. li yàlla li yàlla programme ne fii la fii la fii lay yem fii lay yem. peut ñoom seen seen carrière noonu la ko yàlla dogalee man tey jii nii yàlla bu ne woon ah Alboury suba nga bàyyi làmb ma bàyyi non gaañu mun naa toog ba ci kanam ndax man xaj naa fi <laughs> yaa ngi dégg yaa mun naa mun naa toog ci kanam léegi ñoom euh, ku ci nekk ak ku dul waa Grand Médine sax mbër bu ci nekk ak sa plan de carrière te fii lu am yàlla la yàlla mooy dogalee noonu ñoom ay champion lañu wax dëgg yàlla ku ci mel ni Pa Morro kenn mënu koo génne ci làmb Yékini Junior ndaanaan kulifa bi ñoom dañ leen di tiitaroo ay ñoom nongoloo ay ñoom caatu piol bi étoile jolof xam nga ay ñoom euh, yaran genre keroog tamit bëri na daan agago xam nga ay Mori cargo ay top 5 bari nañu mbëri grand Médine ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp wax am na ku Jamono am na yooyu mën naa ne boucher boucher waaw daan booy bi. boucher ñëw mu daan ko. seen ah. kon baax na nee naa la daal boucher moom man sama xarit la. waaw. signature bi pourtant demee wutoon la man Alboury melu ni muy waxee ni muy jëfee la mel Alaaji Mbaye sama nit la sama xarit la. ñu gis bëggante loolu yàlla moo koy def Boucher tamit sama nit la sama xarit la ñu gis bëggante voilà damaa bëgg boo ma amatee combat sax mu jàpp. mais la ñu ah, man. nga ñëw tuus waaj parce que euh, da nga ne nañ la may tuus ndax musuloo tuus. mais li nga ñaan ak li nga def moo ngi mel ni ndar ak ndakaaru dara bokk. yow xam nga ne man damaa ñëw ba ci looloo ma nagam loo ba ba ma daanee sax ah billaay la ma bëggoon a joxe joxe wu ma ko dama programme sama tuus ànd ceeg waa ngéwal gi faal ay ñoom euh, Kirira Xaarim ay ñoom ay ñoom ay ñoom Demba Demba Golo ay ñoom Fallou Petit Coppet ay ñoom Langaan mooy xale boobu ñooñu doon tuusal man maa leen fa sama ñoo may man maa leen fa indi woon liñ répété ku nekk gis na ko la répétition bi. Mhm. loolu rek dafa taj dëkk bi. Mhm. répétition boobu rek mais dañoo dem ba ci biir euh, ñoom ñu ñëw. gars yi téye leen ci bunt bi xamuñu leen juste ñu woo ma nag ma pour ma tuus ma ñëw waa kër famille Pape Seck ñoo ma tëgal. wax dëgg yàlla liñ ma tëgal santiru mu ko. non ñoom mun non ñoom mun nañoo tëgg piir ndax sama combat yi ñoom ñoo ma koy tëgal. mais dañoo dem ba foofu wu ñu xamuñu la laa war a tuus xamuñu la laa indi moo tax ñu ñëw. fecc foofu lu bon. voilà non li mu fecc baaxul. nga fecc tamit. non loolu man ay bool sax dama koy fecc te su ma ko feccee day tegu mais li Sénégal doon xaar ci man ak li ma ñëw ke li ma fecc keroog bokkul. loolu moo tax mais juste ñu loolu dañ koy denc mu gën a nooy. defaraat ko réparé waat ko xaar grand combat xam nga boo amee grand combat loolu balaa ngaa dugg sa tëkkat yi ñooy njëkk a dugg voilà. pare nga pour bëre sa bisu bopp. sama bisu bopp loolu laay jooy chaque jour. ñu xam ne état bi réew mi yëngoogul. bis boo xam ne man maa ko téye nii en mu jeex di diriger. daan mu jeex booy demee bay fecc sax nit ñi daanu sa kaw yooyu laay wër xam nga. grand combat yàlla ñu ko yàlla may ñu am ci ndam. final Boucher ak Albouri grand combat stade Iba Mar Alla mënoo maa ba. ba nga wala bëggoon ba nga wala bëggoon ah dem leen ngeen laaj Boucher. waaw ah, man moom sama xarit la ko te te man ba ma xoolee ba xool sax. dafa mel da nga koo ñëwante. non billaay Bousse dama koy dama sama sama xarit la. voilà voilà. non c'est que damay damay doon bëreeg Bousse ah. gaañ ko fii ay Matar Diop suba teel dañuy jàpp sumay mbir ah ay ay ñoom ay ñoom ay ñoom Moget dañuy jàpp sumay mbir ay ñoom Nora Balde dañuy jàpp sumay mbir xam nga ay Moget dañuy jàpp si mbir yi. léegi nag boo ko dóoree gaañ ko fi mu ne dañoo ay nit yoo xam ne mënuñ ko séddoo léegi buuse nañ nekk ay xarit ay doomu ndey su ma xëyee suba wala waaw booy nga waaw su may tëdd na waaw dama wennoo <laughs> ñu ay xarit quoi <laughs> te buuse daa am xaalis <laughs> keroog gi léegi léegi suñu suñu jógee ci loolu dañuy ñëw li nga xamante nii ni moo moo moo lëmba réew mi mooy mm-hmm. sa Gana Gueye coow li nga xamante ni lëmba na réew mi yënga loolu Idrissa Gana Gueye lan la moom mbër. lion national Gana Gueye lion national. champion d'Afrique. Gana Gueye. jour la. jour bu am tudd Gana Gueye. ok léegi ko dañ ko dajal. <laughs> moo nekk Paris yow xam moo nekk Paris. waaw. la nekk. lu def. Sénégalais la. Euh, la. léegi sax euh, ci ci saison bi dafa am benn maillot boo xam te ne dañ leen koy jox mais dafa am drapeau góor jigéen. Ah, waaw léegi daaw dafa ne woon dafa joxoon benn prétexte ne mënu koo sol ren mu ñëw mu ne du ko sol coow li nag bari trop. fi mu toll ni kay xam naa loolu gën a jege. ah ah nañ ko dàq affaire ah, moom moom ah. tant que sénégalais ah nañ ko dàq c'est que fii àdduna la. nee naa la man xoolal ñiy dem Dubaay di lekk ay jonkon sax man xoolal ñooñu man du ma leen wax dara ndax fii non man man sama man man man li may lijjanti mooy xam nga nit ku ci nekk da ngay sës nit ku nekk yaa moom sa bopp quoi. nit ku nekk nag bu defee dara peut-être sës boobu mu sës ñi doon dugg ci gaal bi man merew ma leen de peut-être dañoo sës dañoo tollu foofu nit am na fu muy toll dem dina def loo xam ne sax buggu ko def des fois nga nga interroger koo xam day tux ah mu gis la ngay tux sax mu na la bàyyil tux tux baaxul wala nga gis kuy naan te na non danga may déglu rek des fois nga gis kuy naan ah nga gis ko muy naan nga ne ko damay naan may ma si mu ne la lii baaxul te moom xam na ne baaxul mais peut-être nit ku nekk ak ak fi nit ku nekk nattu ak nit ku nekk fa sa tolluwaayam nit bu to am na fu nit fu muy toll bay def benn affaire boo ko munee woo ndànk ah nga wax ak moom ci njëkk ak teraanga teg ko ci yoon bu baax xam dina la dégg de mais mun na ko sax bañ a bàyyi ndax moom du xam sax nit nit a ngi def fii loo xam ne baaxul mais moom neexu ko mais munu ko bàyyi peut-être nag sës boobu ñu sës bay def loolu loolu duñ duñ ko clamé kenn yàlla suñu borom mi leen ko teg la ñuy ñaan yàlla mu teggil leen ko. man nag wax dëgg yàlla sama yoon newul ci ay góor jigéen ndax man du ma góor jigéen du ma ko def du ma def loolu xalaatuma. mais yow mais yow du ma xamante ku koy def. voilà Alboury ñu gindi la tuuti maanaam Gana la nga wax nii billaay maa ko xam. tollu ma ma ñu ñëw. damaa bëgg nga xam damay dof dof rek coow gaana Gueye boobu ngay wax xam naa ko li ngay wax mais dama ne la loolu moom tolluwaayam la foofu la toll moom xelam foofu la toll nit nag bu ne lii du ma def lii loolu dañ ko koy may nit nag bu ne da koy def am na ñoo xam ne euh, si réew mi lañ dëkk juddoo ci dëkk bi te ñu ngi dem waxuma la sax dañuy sol ay moyen góor jigéen ay logo góor jigéen dañuy ay góor jigéen lañu. mais léegi yow loolu ku la fayoon. man sol ko da nga ko ak xel mi ma toll nii ak fii ma toll nii du ko def. ok Alboury nag nit nit des fois nga toll foo xam ne nag sa loolu sa po sa domaine mooy sa xel mooy toll foofu te loolu. Euh, boo amul ay mbokk yu loo indiwaat mën nga sànku mais man ab ah, loo xam ne duma ko def te dugaluma kenn mu koy def ku koy def nag wax laa ci mën boo soo ko soo ko ma balaa eh, poussière bi. oh là là. <laughs> Ouzin oh oh mais attends. bul yàq suñu émission. ci point bu am solo. Euh, donc Ouzin dañ ko war a déglu Ouzin développé. léegi lii laa la. Fambaaka Seye waaw. waaw ah. ah, léegi lii nee na dalaa nopp. Eh. kii jigéen la. waaw tamit. Ah? góor ngi nopp góor ñi di. yow fii yow fii àddina la xam nga la laa gisagul man. man man xam nga fii àdduna la gis nañ fi lépp góor ñee góor ñaa ngi nobante jigéen ñeeg jigéen ñu ngi nobante xam la fii la laa fi gisagul. nit kuy suul boppam daw leen kii mi ngi suul boppam loolu rek laa gisoo ko fii moo tax man dara dara wu ma lépp fi am lépp man mënuñ ma wax lu lu ma ay ay lekk yi jonkan yi ah, bilaa defuma kaa ndax. réponse bi ah moom moom moom moom nu mu tudd ak. fu mu waaw surtout loolu. non am na loo xam ne non attends am loo xam ne affaire privé la euh, voilà bi am na ñoo xam ne da nga koy def da nga leen nëbbu voilà duñ ko yëg dañ ko xool waxtaanee xool. moom waa waa baax na ku yàlla dimbali la euh, ku baax la <laughs> yàlla dimbali na ko. bi la gënal la waaw. waaw yëpp bëgg naa xam. jigéen booy jigéen baax na de jigéen dafa neex de. Ouzin bul émission man Alboury li may laaj mooy am na ñoo xam dañu mel neex na de neex na ma trop mais ci mën naa ci deux ans yi lañ ko xam ndax ci mën nañu ci un an yi saison bi. nga def exploit boo xam ne ñëpp xam nañ Alboury Sénégal wala international. ba may ba may ba may bëre. Euh, li may wax ni yëpp waxoon naa xam nga loolu. man chaque combat dama daan fecc bu dee Modou Anta yow yàgg nga ci làmb. sama premier combat damaa fecci damaa bëree daan fecc wax lu ma saf xam nga lii dabuñu dañ ko judduwaale suñ papa moo gën a neex ñëpp yaa ngi dégg lépp waxoon nañ ko mais at lépp loo gis moment la. bu yàlla ne wax moo tax boo yàkkamtee da yàqule ba pare di yàq rek di dem. tey jii nii euh, am na loo xam ne boo ko ñoddee am na ñu ma gën a neex foofu dàq ma bëre ah ëpp ma doole ah bu ñu contact sax du ma leen daan mais kenn xamu leen loolu du ci man du ci ñoom yàlla mooy def loolu lépp loo gis rek moment la tey ji nii euh, yàlla bu la bu la waxul woon yàlla bu la tàccuwul woon nga ñëw di forcer lii. nit ñi da nga leen di soof. Zoss de waxoon na ko nee na boo xewee des fois di taxaw seet du xool sa bopp sa yaakaar ne du yaakaar. noonu la demee nag am lépp moo tax ma lépp loo gis rek. yàlla mooy yàlla mooy def loolu xam nga euh, tey jii nii man forcé wu ma dara. tey jii nii am na am na ñu ñëw di forcé di di di neex neexlu est <coughs> nit ñi reetaan mais da nga da nga da ngay mujj a soof nit ñi. app bi jotagul yàlla namul ci loo ci yow loolu kon fii dara jarul forcé lu am rek ñu sant après mi ngi ko tëggoon moo gën comme adversaire jox ko albi na ndax ah, loolu baax na Bara Ndiaye wax dëgg yàlla champion la te temps loolu du temps génn temps ay Bara Ndiaye baax na tam yaakaar naa ngee ku dul Bara Ndiaye sax baax na Cobra. Cobra Cobra baax na. Cobra. baax na bu Pikine. sëñ bi ma ma. Euh, ne man képp ku ma làmb boole sëñ bi. du ma ne Cobra jox leen ma kii du ma ne jox leen ma kee. mais albume ñi nga nangu ñëpp baaduñ naan. Mm. ngay man kenn du ma dugal ku ma woo ne ma yow diw. esaaf mooy aare esaaf. esaaf laay laaj. esaaf ne ma baax na ma jël bu ne ma baaxul ma toog xaar yàqamtiwuma. esaaf mooy lan ci olof. esaaf mooy ñoom aali ñoom Cheikh Seck. ci ah, ñooñu. waxu nag man mosuma ko gis. yaa dégg xaw ma mosuma ko gis mosuma ko mosuma cee teg sama loxo mosuma gis esaaf mosuñoo gisante mosuñoo waxtaan mais esaaf ñii nee mooy ñoom aali. ñoom Cheikh Seck ñoom euh, ñoom Moussa Ngom ñooñu ñooñu xam naa ñooy staff. mais nag gis nañ sa rakk ji fan yi fi ñu doon dafa mel ni bëgg a fay. keroog na nga nee nee na nee na ay waxam ngay ngay ngay ngay jël non non defal ndànk ndànk parce nag non da ngay nangu xam nga teel a nangu day wàññi ay dóor déglul rek suñ kër kan moo fa neexul xaw ma ko ñëpp a neex mais fa du njaga xaaral mi ngi toog nii rek daa siliise rek moom seek moom carrière jigéen na ko nar a yàq mooy lu ne ma dugg si. mooy ku baax la ku neex la suñ kër ñëpp a neex même suñ koñ sax laa lay wax ñu fay fréquenté sax dañoo neex. moom mooy moom tabaarkalla macha allah mosu gu ma ko def waaw waaw ma mooy de. waaw waaye sëy sëy moom sëy moom dégg naa neex na trop trop trop macha allah waaye yàlla dimbalee gu ma si nattoo gu si. waaw bëgg naa ko bëgg naa mos bëgg def yooyu yëpp <laughs> ah, waaw waaw tamit bu yàggee ñu ne kii moom xanaa mais nit laa de bëgg naa yooyu yëpp. mais gars de. Ah, ah looloo ma si jaaxal man fi ne nii fi ma téye rek moo ma jaaxal waaw loolu rek a ma si jaaxal fi mu ne nii bëgg naa bëgg naa wër di moy di caaxaan di di yàq sama waaye. <laughs> waaye eh, lii daal kenn xaw lu doon. la <laughs> euh, laa ci lii waaw di sant gaa yëpp di sant ñuy jàpp ci combat bi di sant ñuy jàpp ci combat bi di sant waa caabi ji bu baax a baax a baax a baax Société Générale Immobilier du Sénégal caabi ji nag la tuddoon. mais léegi dañ ko def société jeune actionnaire laa ko dama ciy wax ba doyal. voilà voilà ñoom dañuy jàpp ci mbiru arbre bu baax a baax ak waa 2 TV seen patron Mouhamed Kanté xam nga Pape 2K TV tamit di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax ay di nuyu ñëpp ay mbay jeeju waaw suñ pro boobu moom it day jàpp ci affaire yi bu baax a baax Youssoufa Niang da siy jàpp bu baax Ahmed Thiam Tidiane Diallo ak monsieur le maire euh, Mari Mari Maymouna Diédhiou. monsieur le ah. madame la maire. madame la maire Maymouna Diédhiou Aly Ngouille Ndiaye ba moom jolof jolof boobu day jàpp ci mbiri bu baax a baax di nuyu euh, gay wilaan bu baax a baax a baax a baax Samba Ndiobène Ka Samba Ndiobène Ka ministre de l'élevage ah, waaw man xar lomb mun naa ko lekk day jàpp yo ma may xar directeur marché poisson bi ka Kajali Gassama moom it wax dëgg yàlla ñëw nañ fa avant combat bi moo géré ndugg beeg jën yeeg yëpp xam nga ñu demaat fa mu jëkkati xaalis bari may ñu jàpp ci yëf yi waa Kajali Gassama ak maam Baba Sall ñëpp. waa banlieue treize mafia yi surtout mafia yi waa banlieue treize waa bopp coor waa café gi xam nga mafia yëpp gis nañu taxawaay bi ak waa Jaraaf 2 ak ku ci mel ni Nguer euh, borom xidma euh, euh, business Nguer. ñu jàpp ci affaire bu baax a baax baax a baax ak ak Xaadim Fall waaw ak Tafa Mara ñu ngi koy siyaar baax ak Cheikh Bamba général saltige caajaay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ah Pape Jamil Sarr borom sopri moom da lay di la ñaagal moom it day jàpp bu baax a baax ah Cheikh yàlla moo ñu boole moo jógee fii këram laay dem añ ba suur man fa laa dëkk presque képp ku may fekk fa nga fekk moom moom moom sama xarit la sama papa la waaw mais léegi lenn laa bëgg nga tëjee ko. Mhm. li nga waxoon tuus. nga répété ko ba noppi te fecculoo ko loolu daf maa metti déggoo ma de loolu loolu daf maa metti loolu daf ma metti loolu loolu dafa waroon a yëngal àddina ndax loolu dañ ko bëggoon a tuus fii. Youssou Ndour gis ko baar de xolam tooy ah mu jël ñu ne ñu defaat leen ko fee ñun loolu lañ ci programme woon. ndax ndax ndax lépp ndax lépp alburee demal ta ñëw bàyyi buuna alburee demal ta ñëw te loolu wax dëgg yàlla ba koy Youssou Ndour di way man boobu man. juddoogu ma du dëgg. ma ñëw affaire bi xewi woon trop trop trop trop trop ma ñëwaat xam nga mise à jour ko ñëpp bëggu ko yaa ngi dégg ah léegi fi mu ne nii ba mu neex a jëfandikoo te moom tamit mu ngi ko bëgg a way birch. mais est-ce que chaque jour su ma xëyee moom laay déglu su may tëdd moom laay déglu bu ma yeggee maa mbay ngay fay du ma ko may du ma ko ci may dara virgule du ma ko ci may bàq bu mu ci. na ñamal ndax Youssou mën na koo changer. waaw non. Mbaye Gueye loolu ah, Alboury demal te ñëw bi boo ñëwee loolu da nga koy changé buñ ne Alboury demal te ñëw bàyyi buuna Alboury demal te ñëw waaw waaw kiddu re foofu nga koy téye rek après Youssou Ndour ñëwaat waaw bu ne waaw waaw nga ne kiddu re après nga dugal bu dugalee mooy bàyyi Mansour Ndiaye nga ne gintal ran gintal bu na ba jolof mare naan buna yaa bunu ten ngene kin sal pasakin taat ki samaram wax cakin ran kukun kukun kundu ran kun re rek cër bersi wàcc loolu ci loolu difficile mu tas après dara xewul loolu difficile wul ah def dina ko def na ko dina ko def Youssou gis nga lu mu mën. ah Youssou Ndour gis nga lu mu mën. sallallahu alayhi naa mënu ko def. Bousse. ngay ànd. Bousse maa moom dinañ mën a def. ah Bousse dina eh, Youssou Ndour ñu ngi lay ñaan nga ñëw eh, yóbbu ñu Bercy musuñ fa dem dégg dañ daan dégg rek Bercy Bercy Bercy te lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt war nañ faa dem bu ñu demee toj ko ñëwaat loolu am amul problème duñ daw duñ def dara ndax ñun sama du daw xam naa day te muy xalaat naan est-ce que booy bi du daw xam naa xam naa xoolal dafa may yóbbu rek ma toj ko ñëwaat du ma daw man ma am doole. sama xaalis moo nekk CNG ci làmb ji li may am ci làmb ji mënu ma koo am foofu. te man duma dem ba foofu nag di liggéey man mënu maa liggéey musuma am man awma liggéey làmb rek entraînement man su ma demee foofu dañ may liggéeyloo di ma sangaloo ay xaj di ma laabaloo ay ay ay yëf xam nga te man yooyu ay xeetu la laabloo xale tubaab man mënu ma ko mënu ma laab dañ ma yóbbu ma dem toj ko Bercy ba mu nooy ma ñëwaat ay du ko def kontaan naa def ko